sëriñ Fallou sama sëriñ di nuyu ma fekk ñëpp nag ak ma fekk si ak xale yi laaw bi ak sama jeeg yi sama maire yi képp kuy maire képp kuy maire fa ne kàlla bu xew yàgg a liggéey ak ñoom ñu topp ma te lépp lu ma bëgg rek nga ànd ak man te su ma tukkee ñi ngay continuer di liggéey su ma toogee ñi continuer liggéey kon man mag toog laa yemale ndax am naa xale yoo xam ne nii ñu ngi ci terrain bi guddi ak bëccëg li ma cee dox naa dangaa bëgg politique waaye loo bëggoon politique yow laa ñun bëgg politique da koo ànd ak nga war a bëgg politique loo di nuyu nag waa daara mos si nga àndal ñëpp duñu sama rakk jigéen ñi xadi Diop di nuyu ñu nga àndal ñëpp bàyyi ma kenn di nuyu nag sama rakk xadi Diop nga xam ne moom def ci bis bi nañ ko ñaanal ñu da ngay nag waa allié yi nga xam ne dañoo boole sa bopp bu sa bopp képp ku rek nga boole sa bopp bu liggéey ci Touba te yaakaar naa liggéey bi bu ñu jógee ci Touba résultat dana xam ne année yii dugg nañ Touba de ba foofu résultat dana fi am ndam ndax li ñu ñemewul ñoo koy ñeme ndax li ñu ñeme ko damaa amee woon ñeme loolu yor samay école yor samay programme di dugg ci Touba di génne ñu ne ñu war a ji ñu jox ko ay parrainage di liggéey di liggéey ñu tënku tamit ci zone yi ñun ñoo ngi nekk zone huit xayra mais dañoo yàgg liggéey ak maire mii ci ay transformation ay formation yoo xam ne yu am solo la pour jigéen ñi di liggéey moom ci ay financement yi nga xam ne mi ngi jógee ci monsieur président Thierno di jaar ñuy loxo te lépp di ñëw ci ñun jigéen ñi jeunesse bi amuñ fayu maire ndax Touba fii da liggéey macha allah mais Ndeye Lo mi ngi ànd ak jigéen ñi ci financement yi transformation yi ñun jigéen ñi ñëpp dañuy dañuy dañuy liggéey ndax dañoo mën suñu métier am suñuy diplôme grâce à moom ak monsieur Thierno Lo ñu ngi sant bu baax di gërëm jeunesse bi nga xam ne ñoom ñëpp moom lañu àndal ak suñu yaay yeeg suñu tante yeeg suñu bàjjen yi di leen gërëm bu baax di wax nag euh, au soir du incha allah ngi ñaan yàlla am majorité à assemblée nationale nii nga xam ne moom lañ jigéen ñi takkoo takku ba dëgër ànd ak président Thierno Lo de loolu yëpp balay gën a leer soir du 31 si lay gën a leeree ñu ñu ànd ñun ñëpp voté voté Benno Bokk Yaakaar ngir li ñu bëgg ëllëg ñu mun koo am incha maa ngi nuyu mbooloo fi toog ñëpp di wax ci yi. di nuyu président Thierno Lo ak Yandé Lo mi nga xamante ne dañu benn yoon bàyyi lépp dara tamit bàyyi ñu ngi defar ay formation chaque jour ba bu ñu jógee Amérique rek ñoo ci mujj di wax ci tourisme yëpp nag di sant Yandé Lo bu baax a baax bépp formation bu baax rek mu ngi booleeg dërëmam ak ñaar dërëmam di ñu ko defal Thierno Lo tamit seetaanu ñu benn yoon ñu koy ñaan tamit mu gën a yokk formation yi bu baax a baax ñu leen sant yéen ñëpp di leen gërëm. soxna Ndeye. bu njaayee ay wutteem ak ay bëccëgam lépp ndax góor gi mu ko seqal muy président Thierno Loum ndax soxna Ndey tey jigéen la mais man dama naan jigéen du mën góor la ndax ñoo ànd ci terrain bi bu ñu xëyee suba trois heures du matin wala deux heures la ñu gàtt ci déegam bi di nuyu mbooleem allié bi ñu àndal boobu ba léegi di liggéey te nga xam ne Bass Gueye jiite ko di waxaat maam Thierno damay wax ci kàddu jeunesse bi jeunesse bi ñu muus lañ xam nga lan moo tax ma ne ñu muus lañ ndax tey jeunesse bu muus te yeewu rek mooy ànd ak président Macky ku muus te yeewu laa wax ku yeewul na xaw mais ndax tey ñoom boo taxawee ñoom argument yi ñu lay degal ci président Macky Sall li mu def ci Sénégal li mu def te amul lenn loo xam ne ñu ngi ko ciy sos kon da xam ne ñii ñu bëgg Macky Sall la te ma am sikk ne seen quartier yi Macky Sall lañ jox gars yi tàccu leen seen bopp jeunesse bi maam Thierno Lo nag dafa doon wax Macky Sall bu dogtee ci nopp maam Thierno Lo dana àgg ci Macky kon may waxee ci bi nga xam ne ñoo nekk Touba jeunesse bi bëgg liggéey am jom président Macky Sall boo demee ci président Macky Sall ne ko nañu fi may ay usines yoo xam ne jeunes yi dinañ ciy mën di liggéey guddi ak bëccëg waaw nañu ko dolli te xam nañ ne mu ngi liggéey ndax Macky Sall ku ne xam na ne lim mënal waa Touba waa Touba delloo wuñ ko njukkal bi delloo wuñ ko ko de ndax Macky Sall boobu ba léegi loxoom a ngi Touba ku ne xam na ne. élection yi jaar na mais taxul Macky Sall gagné de mais taxul loxoom deñ Touba dama naan sax la lay gën a defar kon nag waay waay nañ leen ko delloo jukkal ñun murid yi nan lañ koy delloowee jukkal eh bu boobaa le 31 juillet am nañ ay carte d'identité ñun xeexuñ de teyuñ ay oto xuloowuñ ni ñuy xulooyee am nañ suñuy carte d'identité nañ leen ko jël bu boobaa xoolal ticket baa nii ma wan leen ko xoolal boppu fas la mooy boppu fas ñëpp gis nañ ko gis nga luy xeex bu boobaa nañ leen ko lem comme ni ñu waxee ne noonu lañ koy demee muy nii ibbi enveloppe bi dugal ko ci jël kii bi te kenn du ko kole nag ku ko kole rek boobu baaxul kon buñ ko kole dañuy jël enveloppe jël bopp bi rek dugal ko dem def ko nànk ci kees bi ñu xaar ngoon ñu féete président nous avons un département phare dont le président Macky Sall compte pour aller de loin mais aussi pour amener le Sénégal à bon port le département de Mbacké est un département phare pour le Sénégal et pour le PSE plan Sénégal émergent te plan Sénégal émergent boobu je pense que le TER, le train express régional, dont vous êtes le président du conseil d'administration, faisait partie du plan Sénégal émergent. Mu amoon un candidat qui disait que bis bu train boobu dawee pour ne pas citer son nom moom santatul sant baayam kon tey nan la sant monsieur le laajal ñu ko bu ngeen jàkkaarloo ba xam nan la sant bi ci topp le Sénégal n'a pas besoin d'hommes violents Le Sénégal a besoin d'hommes intègres, de dirigeants intègres, compétents, prêts à servir leur peuple, mais non pas des gens prêts à semer le désordre dans ce pays-là. Nous reculer et nous ne reculerons devant rien du tout. Le président Macky Sall a besoin d'une majorité éclatante. Inch'Allah Rabbi, il va bénéficier des cinq députés du département, plus les deux de la liste nationale, pour maintenant une majorité éclatante à l'Assemblée. les partis alliés dans le département de Mbacké ne vont jamais démériter incha allahu rabbi danañu accompagner suñu sœur de coalition Khady Diop mi nga xam ni tey allié la te nekk ci liste bi pour qu'au soir des ñu mën a ànd am ndam am na noon yoo xam ni saa bu ñu naree perte génn ay kàddu yu ñaawu jëmale ko ci dëkk bi jëmale ko ci suñu kilifa yi je pense que ni loolu war naa dakk te yoonu murit dañ ko war wutal barrière de sécurité ba ces vertus de mensonge ces incompétents ces sans-saveur ces inodores là tëj seen làmmiñ bàyyi la kàddu yoonu murid fii nag maa ngi nuyu aussi les membres des partis alliés yi nga xam ne ñëw nañ fii tey taxaw fii wane nañ yéen ñëpp benn ngeen te yéen a ngi nekk di liggéey pour que liste président Macky Sall bii ñu àggee incha allah au mois d'août ngeen gagné élection yi ci ni gën a rafete te am naa ci yaakaar damay féliciter aussi Serigne Galas Taltoum sama rakk la sama sëriñ la parce que waa Kër Serigne Touba la parce que ba ma ko jëkkee jot ne ko Touba day am na ñun lu ñu fi liggéey ne ko soxna Ndeye Lo moo ñu fi nekkal ak Abdoulaye Lo daf ko rafetlu rafet la ko rafet def ci audio wax ko ma boole ko ak soxna Ndeye mu woowaat ko wax ak moom ne ko xelam dal na ci bi mu amee coalition Adiana di ñëw di ànd ak moom pour ñu ngir li xew nag mooy Touba dafa nekk la deuxième ville du Sénégal Darou nga xam ne bi ñun fa doon toq jóge foofu Thierno Ibrahima Fall moom la Serigne Touba déggoon lépp yónni woon ko Ndar kon ñun waa Daaru Muxti dañoo bokk ci biir Touba dama koy sama mbokk yi nekk Dakar bu ñu koy dama leen di wax ne leen ñun ñii Touba la ñu dëkk Touba dañ faa am ay jër am fa ay sëriñ am fa ay mbokk te liggéey nañ yoonu sëriñ Touba yi loo xam ne lii mën nañoo daagu biir Touba mën nañ fee wax laaj fi dem coow li nag dafa bëri ku nekk di fëgg dënnu ku nekk di jóg di wax maa mën a récupérer Touba. Touba kenn du ko récupéré Touba da nga koy xam respecté si fi nekk yàgg fee dugg yàgg fee liggéey nekk un bon relais du président Macky Sall soo dikkee néew di doole yi fi nekk ak ñamay problème nga nekk di ko faj soo ko defee bu jóg jotee soo ko waxee boo waxee nit ñi doon jëm ñëwoon naa fi ñu ànd ak président Macky Sall depuis 2014 ma toog ak président Macky Sall bi wax affaire Touba ma ne ko président dinaa dem Touba def sa benn tas indi la vidéo yi nga xam ba xam waa Touba dañ laa bañ a joxe ma ne ko Touba nii la tëddee dafay am ay xalif généraux nit ay sët bokk ci Serigne Touba du nga leen dégg ñu mukk ñu nekk ci ab rajo di wax ci président Macky Sall maa ngi leen di dégg ñu wax ci affaire politique. ndax ndaxte li leen seen maam defal daf leen a doy ñoom ay taalibe yoo xam ne yii bu guddee dañuy dugg seen biir néeg yëkkati cinquante cent millions jox leen seen i addee te dugg kenn duñ bëgg kenn xam kon ñooñu seen liggéeyu maam doy na leen ba du ñu toog di wax naan bëgg leen kee bañ leen ko loolu amu lan moo am lan moo am mooy Touba. nekk na une ville spéciale parce que titre foncier Sëñ Touba wante ñi dëkk biir Touba ay citoyen sénégalais la ñu comme citoyen nekk Ndar ne nekk Daaru Musi na nekk Matam am seen bëgg-bëgg bëgg am liggéey bëgg ñu former leen ñi fi nekk di ay cancaan nekk ci ay quartier bëgg am courant am assainissement lu ñuy séddale senegal di ko def ñu boole leen ci kon ñi fi nekkal président Macky suñu doxee li ñu war a dox ba fexe couche yooyu yëpp ñu jox leen lan leen war a jox ci saraka danañ woteel président Macky Sall comme ni ko waa Darou Moukhty waa Dakar waa feneen ak feneen di woteel parce que ay citoyen à part entière ñoo yu xam seen bopp am intelligence am lu ñu bëgg le problème de Touba c' est problème de relais le problème Macky Sall président Macky Sall sax ci biir réewum Sénégal bu doon jëf rek la kon day tëdd di nelaw mais problème bi mooy ay problème de relais ñi ko nekkal ci suuf taxawal ko ci suuf war koo liggéeyal ci nit ñi liggéey ko ci góor ñi liggéeyal ko ci jeunes yi ñooñu bu manquement dee am ci ñooñu la am mais nag ndokk bi ñu xamee ne garab gi ci boppam am na noo xam ne bu ñu continuer ci car yi lañ toog te ñu ngi koy dagg duñ ko xamee ñu ngi toog ci élection bii jóg àndandoo ñoom ñëpp taxaw ne il foo ñu rendre au président Macky Sall sa générosité pour que mu mën a continuer di yor senegal wax bi foofu la moo tax ma am conscience que ne Touba gii fois si yaakaar naa ne buñ ko continuer ci nii ñu ko taxawale ci des ci semaine bii respecté nit ñi set nit ñi ci suñu nekk ngeen waxtaan ak ñoom yaakaar naa ne buñ àggee ci élection yi résultat bi dana gën la fi daan am yëpp te da ngeen di gañe loolu am fii ci biir Touba moo am ci yëpp ci ci biir senegal parce que coow li bari na président Macky Sall lu ko nit bañ bañ bañ secteur boo xool ci économie Sénégal fekk nga fa mu liggéey quel est le problème du président Macky Sall mooy réew mi dafay dox di dox di dox ba yàgg am ñoo xam ni dañ fay ñëw ne bu ñu demee ñun ci conquête démocratique du pouvoir mënuñu fay jëlee coalition benn bokk yaakaar donc il faut ñu fexe ba jël le pouvoir par la vie mooy jël ko ci mbedd jël ko ci violence kooku nag ku koy jéem yaa ñàkk xam Sénégal Sénégal kenn du fi jël pouvoir par la violence par la rue sa justement par un système démocratique te système boo ko bëggee jël il faut que indi une politique alternative sans politique alternative Sénégal yi dañoo yeewu kenn mënatu a nax boo nee bon na da indi lu ko gën ou bien lu ñu woteel loolu ci li ñu war a xam na ngeen war cee yee nit ñi soo na Lo nag li tax tàmbale wu ma ci wax il fallait que ma wax lii ba pare yow ak ak ab Lo ak ñi nga xam ne ñoo nekk seen gannaaw ngeen ànd ak ñoom da a am lu jafe ci àddina bi léegi mooy ngor principe gëm sa bopp gëm yàlla parce que yooyu su nekkul ci yow il faut ngay def ay romandaat ay labaj ay naxaate ak ay affaire yooyu mais man li tax ma ànd ak yéen ba fii mooy parce que da ngeen a dëgg da parce que man ku dëgguwul ku jubul mënoo defar man ñaari sax ñaari sax mënoo koo defar man parce que du ma wurit du labaj du ma wax du ma mënut wax du ma mënta def te du wax loo xam ne lii liggéeyu ma depuis bi ma leen ànd ak yéen ba léegi parrainage su ngeen am quatre mille neuf cent parrain yoo xam ne looy doy ñoo ko jox Pape Diouf jox ko ñu Zahra Iyane Thiam ko li ko indi dañ ko jëf dañ fay ñëw di def formation en eau de javel en madar di def ay calebasse de solidarité yow nii la et nga jógee ñëw formé la nga jóge fi yow tam formé yeneen jigéen kon ni di ko def di ko def ñooñu ñooñu ngay ji ñu dafay sa bopp nañ Dakar nga jël seeni kaar ñëw ñu woote fu nekk Sénégal buñ ko defee ngeen ñëw donc yéen da ngeen a yor li ñu tuddee électorat du ay nit ñuy daw di topp ci ay oto ak di topp ci ay mbedd ay maire mbootaay lan yu yor seeni nit fu ngeen leen joxañ ne leen wote leen fa ñu dem wote fa te noonu ngeen ko defee fii noonu lañ ko defee Dakar yëmbal nord yëmbal sud Tivaouane Diacksao Kër Massar HLM 6 fépp ci Dakar ci banlieue ba la fa APD ak coalition Adiana def ñu bari ñu ngi toog seen dënd di ko fëgg ci defuñu ko ñun dañoo def politique de développement autonomisation des femmes am un électorat fidèle et sûr yoo xam ne mi ngi impacté positivement ci le président Macky Sall di def boolewuñ ko nag ci xëccoo ay poste boolewuñ ko di xëccoo ay responsabilité parce que alliance soo ko defee ak nit mu respecté la jël la ne la respecté naa la taay ñu ànd danga ngaa war a doo war a seet dara lu la naq da war a seet lépp lu koy defaral nga koy def di yaatal koo gis mu mën a jariñ ci senegal nga indi ko ci président Macky Sall pour que mu ànd moom pour que muy liggéey ci Sénégal mu mën koo àggale pour que Sénégalais yëpp am ci ndam bu ngeen fi jógee ci ndaje mu mel nii Thierno loolu daf si jaar day def feneen parce que damay def continuer ci suma campagne yéen ñëpp bu ku ci nekk yaa war ne man. maa war a dem nag campagnal samay xarit samay mbokk pour que li ñoom cëraloo ñoom si ak ñoom dayloo des ko fi ak suñu parti allié yi ñu xam ne bu ngoon gaa buñ nee ñu taaru Touba bi gis ngeen ñun ñu taxaw fii yëpp ñun ñëpp ñooy yëkkati suñu loxo ne ñun ci ñëpp liggéey ci lañ bokk kon ku fi jógee war ngaa bañ ñu ni ah benn mbokk yaakaar de gañe nañ buñ nee benn mbokk yaakaar gañe nañ yéen ñi ñëpp toog fii ku ci nekk bu ngeen tasantee ak ñeneen ñi du ngeen leen mën a xool kon nag ku ci nekk boo génnee na nga liggéeyal sa bopp xam ni ci nga bokk da war a dem parce que nit koo gis kenn ku nekk fii ci yéen am na kër gu dëkk am na soxna ou am na ay xarit ñooñu la war a woo mbooloo moomu mooy fal ku ci jógee mën nga ni man de dinaa indi fukk kii ne man indi ñaar fukki nit kii ne dina indi juróom bu ngeen ko defee jour wot bi fu ngeen jaar da di gañe loolu il fallait que ma wax leen ko ca itam gën leen a feddali seen àndandoo bi ngeen jëw a njuboo àndandoo di yëkkateendoo di dóorandoo ba kañ leen di jox résultat yi loo gis nag sama morom dàq la ko jox ko ko ànd boo gis mu yàq mooy laaj luñ mën ta joxe mbaa nga jox joxe woo loo mën a joxe mbaa ngay xëcc cër boo xam ne bii am na ko la ko gën a mën bu ngeen intégré facteur yooyu vous aurez la victoire li ñuy def nag mooy gën a fàttali suñu kóllëre ci Serigne Touba. ca koy tàllal suñuy loxo mu ñaanal pour que réew mi am jàmm ñu dugg ci ay élection ak jàmm génn ci ak alhamdulilah rabbil alamin te mu loolu sax sëñ bi def na ko ba pare. parce que boole na ko ak sëñ tubaa léegi kon nañ bàyyi lépp ci loxo sëñ Mountakha mu réglé ko ak sëñ Touba ñoom ndam yi incha allah rabbi ma leen gërëm ñoo